boo koy xam ngeen ànd tukki mbaa ngeen dëkk mbaa ngeen seq alal 5 millions 380 mille la versé la ñëpp versé la versé waaye ma seedeel leen ni demul woon Màkka dafa aji woon Màkka aj Màkka dafa am ñeenti déwénati ñeent bàyyi yoo xam ne bu ca manqué dara ko jeg sa aj moom la mag ñi di tudde ñeenti déwénati ñeenti yooyu def na lépp al ihram sa'yu bayna safa wal marwa wuquf al arafa tawaf al ifada ñeenti amul lu koy jëg def rek sànni jamra boo demul am na lu koy mabitul muna boo fanaanul am na lu koy réparé waaye ñeenti yi dara du ko réparé def mbaa aj gu yàqu déwén mooy déwénit maag moom ñoo ànd zul xulayfa mu armal kon mën naa ko seet bi de tam saa yu bayna safa wal marwa ñoo ànd mu dem safa ak marwa des wuquuful arafa ñoo ànd yendu fa mën naa ko seede tawaaful ifaada ñoo ànd mu def ko mën naa ko seede kon ñeenti yi di waral déwénati ma seedeel mbokk yëpp Mouhamad Mbaye Mansour def na ba fekk wallaahu shahidun ala madam lu sa Abdoulaye doon wax waaye bi may dellu si mooy dafa ni jeex na tàkk am déet du xam ni kii jeex na maanaam yemul ci ajab waaye day jël ay nit yóbbu leen encadré leen tawaafal leen ba ci tawaaful weda buy tàggu kaaba gi bi nu mujj a def ñoo ànd mu yëkkati nit ñi wax mu jiite ko maa fekkee de li wax. grand sëriñ dégguma ko wax ni def na de maa fekke nga dégg naa ni def na ko ak maa fekke bokk man maa fekke mu yëkkati kàddu di wax ñu topp ci gannaawam di wax mu jiite tawaaful wi daal man ma tëj bu mujj bi ñëwaat li si ak nga xam ni sunna la di nga ku jekk ni man de moom tànku kaaba gi moo teemaa nopp dama sol man maa ànd ak moom mu def ko defal ko booloo ton surtout tof seen Malick doomu imam Mourad Bey mii ajina mag dimbali naa ay nit ba seen ak baax damay dem ba man dama koy ñeewante pour ni ko Mouhamad nangam laa soxla wallaahi laazim dañu toog ci óol bi ba ci si mu sonne waaye damay bañ mu xam ne nangam laa soxla ndax boo toogee sama nekk am na ma ne ko Mouhamad ndax moom Mansour Gueye Abdoul Aziz Gueye ñii laa jël boole koog ñoom ak Baye Cheikh Tidiane Gueye mag mu mënalul boppam dara ñoom ñii ñoo ko àndal. di wër uja yëpp. lu ñuy liggéey ci lislaam mu def ko comme missionnaire moo tax keroog ba may tàggatoog ujaa ji bëri leen Oustaz Mouhamed Mbaye mii dafa versé de yéen te def na lu ngeen deful bu yemoon ci boppam kenn du ko ni lu tax waaye xam na ni doomi soxna la xam na ni bu demee Makka dina dimbali ay nit dimbali na ay ndey dimbali na ay baay dimbali na ay mag dimbali na ay rakk ci xam-xamam ak ci dooleem kon famille bi bu ñu teewee ña ngi bay faal boo demee ni alaaji Mor Gueye sopp na fi gàcce ngalaama li mu yëkkati jox ko ci yàqu tëdd fa di nalaw fawewul ajam guddi gu ne Mouhamad Mbaye ma soroka kaaba nalaw ba doyal lekk ba suur naan ba màndi def ko ngelaw ba doyal yéen sa bopp defu ko deux heures fu mu jotee i ngi gis nga wàcc wuti Kaaba ba julli ñëw su ma néeg moo doon quartier général waaye deuxième cas seen néeg laa ko loolu wane samay frère lañu moom Mansour Gaye mi ma bokkal Khalifa Gaye Abdoul Aziz Al Amin mi ma bokkal Khalifa Gaye ak moom mii ñooy yem ci man wàcc waay bokk benn néeg la may yem ñële laa ko doon yem la may bi may wax El Hadj Malick Gueye mii di ko jaale yaayam moom mii moo ma ko wax ca fa toog ca restaurant ba ca hôtel ba ci saa si laa ko woo ma ne ko yëguma ko yónnee ko message ma ne ko daje nañu conférence fii waaye waxuma ko nii na yéen ñëpp waa Thiès waa Sénégal xadara Malikiye bu ngeen demee ni Serigne Babacar Sy Mansour doomam ci taalibim bii gàcceelul ko mag si daaj bala kanam bi ñu def tawaaful bi daa bi mu yëkkatee astawdiullah kaabatallay dama daanu ci sa xol Malick Mbaye kontaan na setam di wër gi di ko wër na ko Seydi Hadji waxe nit ñi topp ko kono dama daanu parce que xalaatuma woon boobu xaal waaw waaw ba mu yëkkatee ñëpp wër mu jiite ko ba mu ne astawdi'ullaah kaabatallaah rek dama yëg xaal bu sori. sa kaw parce que fit gi mu am ak yëg gi mu ba tax mu yëkkati ko ca kaw ñëpp topp yal nga la rappal kaala gi Alaaji Mouhamad Mbaye Mansour loo fa ñaan yàlla na màkk gi yàlla ko tiifoo yàlla nga jël ay nit yóbbu fa ci sa sa kàttan sa xam-xam sa dara sopp na bi mi ñu defal teraanga ji ci yow yàlla yàlla wutuñu fayal Alaaji yàlla yàlla wuuti lu fayal gàcce dalaama ahsanta akmalta ablaxta wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu ba mu demee aji am 1944 boobu man judduwuma am 1944 la wax 44 booba man judduwuma sama yi sama papa ba muy dem Makka ajam bu jëkk en 1944 dafa dem moom moom moom moom li may wax ni moom moom wax nee na ñaari téeméer nit ñoo génn ci biir Sénégal pour dem Makka 200 personnes te 200 moom dong moo ci dégg arab moom dong. waaw moo ci dëgg aar. waaw ci 200 personnes yi jóge ci réew mi di dem béykat yi aaraam. nee na nag na ñu mu àndaloon ci délégation bi képp kuy wax rek moom may jëli. Euh, nee na ba ba nu ba bi ñu commencé dugg ci aj gi li li euh, li alaaji Idrissa wax ni ni Mohamed Medina la la jëkkee door a dem Makka sama papa nee na Medina la jëkkee door a dem Makka kon wat ci watit la waaw nee na ba mu demee euh, ci biir aj yi coono jàpp na ko boo xam ne nee na ba ma juddoo ci sama ndey ba tey musuma gis musu sama yaram mus a dekk coono bii waaw nee na ma ci diggante bi réer naa fi xamatuma fu may aw ba Arafat ñëw ba jàll ba mu fukk fukki fan juróom te te door a fay kon amul aj fat loolu loolu wax sax moom nee na mu mu ne amu aw ma aj bu mag alxaj mu teg kenn yi bu mu ñibbisee nag Alaaji Mansour Balxaw mi dafa jóge Tiwaawan ñëw doon ko ziare si ñu ñëw ba mu doogee moom mu ni ko ah Alaaji Mansour ni ko ana waa Makka ak waa Medina mu ni ko ñëpp ko waaye nag man aw ma ak nopp. ku waxoon loolu. maam Mohamed. mooy Tafsir Malick Mbaye. ah waaw ni ko man aw ma aj bu mat. moo ragal yàlla. ko lii de maa ngi ku jóge Màkka di mu ne ko Baye Malick mu ne aw ma bu mot arafa ko tardé a mooj mu ne ko talal sa loxo loolu fii la amee ci biir kër gi fii mu tàllal loxoom mu jàng Fatiha sama papa nee na la mu ca teg man man ma ko parce que da ko yelu bi mu ko yeeloo ba pare daan ni ma ko daa koy ëpp samay loxo ni ma dogul man ko dogu naa man ma fut bu déwénee ni nga dellu wallaahi loolu onze heures la ci suba cinq heures moom passe ma 11 heures ci suba lañ ko wax loolu mais 5 heures paas bi teg nañ ko loolu paas bi muy demee déwén. moo am nag benn aaya alxuraan bu mu ko jox moom bal xaw mu ne ko nag dee ko sikkal Ah, dee ko si kër. waaw. baatu nit suur bu taw ba. mënu ko bu soobee yàlla nga delloo. baat boobu surtout taw la nekk. laa tahzan inna Allaha ma'anaa dinaa leen ko jox xewul gu rëy a rëy ci ne inna Allaha ma'anaa waaw waaw da koy arrêté nag boo ko arrêté di ko sikkarloo euh, lim bi ah moom bu jàppee ah. dépense bi juróom benn juróom benn weer mun naa dugg sa poche. sama papa nee na ñetti fan laa ko si kër. yàlla yónnee ma juróom-ñaar fukki junni. ca jamono boobu. 1944. la ilaha illallah. loolu. moo xewoon ca 44. en 45 mu delluwaat ma ba mu demee ba ñëw mu alaaj ma soo daa defaat na mu defoon déplacé waat ñëw dikk jaare ko mu ne ko ah bàyyiwuma benn farata de la ko sama turndoo defewul de man noonu la ko yàlla nag moo des mu ne ko am naa ci waxuma ngir li la neex waxuma ngir li nga tudd sama baay waxuma ngir sama baay wóor na ma ne yàlla nangu sax loolu euh, euh, saan woowu nag saan woowu dafa demoon. waaw waaye dafa deltu mais kii moo koy indi. moom Oustaz Mouhamed Mbaye Mansour. waaw ah, waaw jagleem la. kii waaw jagle jagle la waaw jagleem la. jagle la. dëgg la euh, li wolof di wax naa nag. waaw si sama turando bi laa dégg mu koy wax léeg-léeg. waaw naa la ca maam sa sa dogo jël. dëgg la ah, waaw ma affaire baaxul na. incha allah. waaw. kamil ni sama soxna ñu sama doom génn ma pilaan bi tey mënu ma dem siyaare ci Mouhamed fa ma toog ci pilaan bi sama soxna sën a génn ni ma waaw ah yow da ngaa dematul man ko fi mu ne yëg na am lu ma yëg waaye kàddu googu ku garaaw. waaw mais doomu mag la. garaaw bañ ca. doomu mag la. man mi wax nag. wajur laa ci moom. ñu ne bu jàkka xatee élément yi. ah. dan naa wax bu jàkk wax élément xar bu jàkka xatee. élément yi géwél géwél maam jiiteel lu la réer ci sa diine nga laajal sama xol sedd waaye nag dama ne yow xoolal yow doon doo sa baay baay baay ñëpp bu dee doon ñëpp doon waaye nga daan doon sa baay ba doon ko li am solo nga def dama laa nuyu nga lee ma am lu ma jëriñ ma ne reega rek si bañ feeñ waaye ke kontaan te reete moo ca bàngal ba tey mu sa wujju ndax lii rek mu doon mooy ndamam moom la bëggoon ci kaw suuf mën a dégg am nañ bay sa kaala gi barke xalifa maay si danga koo jëli woon waaye dëgg la waay danga koo jëli woon def nga ko si say mbokk def nga ko si say dëkk wax lii may wax na du samay wax waxi bi la man namuma rajo namuma micro damay wax ngir àq bi àq yàlla di li ñu yàlla boole man bu ma jox wedd sama dama sama buwaa ndax man lii ci laa yëngu te ci sama maam laa ko doon ne Alassane Faye Risaala papa ngañ fay mbambu kuré njéeme ñu lay ñaanal yàlla gudd fan ko ànd ak wér fay mbambu kuré njéeme suñu tiitar nga suñu sak nga suñu lépp nga yàlla mi am jàmm tey may jàmm te ku mu ñu suñu borom jàmmal man li ma bëgg a wax kenn mënu ma koo teree wax ngir jëmme Ahmed Mbaye mais yal na yàlla yokk seen jàmm dañ nii bari na ay audio bàyyi ngañ nii bàyyi ngañ naa bàyyi ngañ nii Ndakaaru laa fanaan waaye bu ma raam sax ñëw waxtaan nag ci kanami sang yi la daloon Seydi Hadji Malick Sy Maodo bi mu jubee yonent bi en 48 dafa tiim yoon ci yàlla Muhammad ni damaa kéeméem tey ñu ne ko luy kéeméem mu ne mënatumaa wax loolu ma xaw a dal tey imaam Cheikh ma ci kii dama ko wax ni ko maay baay faal jël naa sama doom ju rafet am ay diplôme man ko kaay ma may la ko ngir lan ngir Serigne Babacar Sy ngir El Hadj Mansour rek ndeysaan te mbaax ga mu ne eh, boo góor dafa xaw a forte day man da maa bëgg ma bëgg la nan nan bàyyi rek mu ngi leen baax Oustaz Abdallah Diop mii Baye Amad Diop alimul kabir maa ngi moom la woon mu dem bàyyi mu dem mu mel ni moom demoon mu ngi fi rek tant ba mu dee fii ba bama bàyyi ngay kaay toog sama wet rek ñu ngi lay yokk sama cooy bu baax di ñaan yàlla nga kaaba hmm. gi ah Amadou may moom ko loo xamul ko damaa fanaane wër kaaba gi rek ne suuti oto gaare ne ko loo xamul kaay wuyu Serigne Babacar Sy waaw ngeen baal ma waay ku sopp yonent bi nga jóg taxaw bàkkaar yi ku ko sopp na toog na Bakar Yoro waaw ku mënta jóg rek ku mënta jóg yëkkati sa loxo. muy yéene ma waxaat ko. waxaat fi yawmal isnayni. fi yawmal isnayni garaat féeméer isnay ni barab la féeméer isnay ni pàkk la alaaji moom soo toog bu mu yàgg ñu ni ko kaay wuy sëriñ Babacar Si mu ñëw sugg ci kanamam lu xaw si mu ne ko bëgg nga dem Màkka inspecteur de l'islam mu wàcc Médine Munawara 19h44 am 44 ans ñëw ci xabru yonent Yàlla Muhammad عظم ذنبي ويشتد كربي ولكن ربي عظيم نوالي صلاتي شفيع الوجات وصحبي وآل لا إله إلا الله المالي ويا ذا المعالي na ñëpp ñëw jox ko ak Alxaaji Abdulaay Dabaax waaw Oustaz Mouhamed Mbaye Mouride ñëpp ñëw jox ko ak Alxaaji Mansour وسر جملة موجود من الصور soxna Amina فاستجلب الفكر لأوصافه طربا كيما تفوز من الأمداح الدرر محمد محمد الأكوان خاتمة نائل الهوان صحيح الوعد والخبر نور قليل حبيب مرتدى خمر مؤيد غير مذموم ولا عسر ماح نذير نافع علم داعي المنير عن زللي والصف عن كدري يا جالب الخلق نحو الحق معتنيا وملجا الناس حين البأس والضرر بكم توسل عبد مجتد مننا بالضعف معتدل باللطف منتظر جلت كسال woon jàpp ni moom jubóo ak boroomam ndekete góor gi Alassane Faye dana daje ku ko gën a jubóog mu génn ci ëtt bi doxantu fii ci côté Mbambara booba Cheikh Hadji Mansour a ngi dëkk këram kër gi ci station bi muy doxantu ba seen góor gi Alassane Faye góor gi Alassane yuuxu alaaj Mansour ni ko lu xew mu ni ko dama doon sëy ci kër tas doon wut ku ma beneen borom kër waaye xam naa ni mat nga moom wax ko la ko góor googu wax alaaj Mansour ni ko waxul dëgg moom du yàlla alaaj Mansour dagg njañ yi jëflanteeg góor gi alsaan fay ba muy jëflanteeg moom ba pare wax ko la mu koy wax toog ak moom këram mbambara ba xelam dal mu ne ko xanaa sa xel dal na mu ni ko waaw si mu ni ko waaye ni ngay waxe sama mag daf ko bëgg Serigne Babacar Kees daf bëggoon ay waxu olof mu ne ko danaa ne yóbbul sama mag présenté la ko bi mu ko indilee sëñ Babacar bi mu waxee ak moom tuuti sëñ Babacar see ko ginnaaw risaala waaw looloo ginnaaw risaala gi attention ginnaaw risaala sëriñ moo ko tuddee du hasard hasard góor gi Alsaan Fay damay wax ni Alaaji Mansour Baay moo di wax ni lan moo tax mu dem Ngor Ngor googu yóbbu Alaaji Mansour moo yóbbu góor gi Alassane Faye bàyyam ci kaw piliyaanam la tëdd jaaxaan fii ci këram ersan jarbaatam dox ko ginnaaw ni ko nijaay xanaa yëgoo li xew maam Alassane Faye ni ko lu xew mu ni ko sa mbokk ma Cheikh Alaaji Mansour moo wuyu boromam Alaaji Salif góor gi Alassane tëb njoowaan li mu tëdd jën bi ñu takkoon njoowaan bi bët bi bët bëtt ko ba bët bi tuur xanaa daa war a jooy wala mu war a jaaxle góor gi alsaan ni dënn ba mu yàgg daan ni der bi de gore na bi mu yëgee ne alaaji mën su dem na mu bëtt moom gore na waaye ruugee gorewul bu gore woon topp looloo topp góor gi alsaan fay ba yóbbu ko barsax kon ñii li ñu boole dafa foo bàyyi ngay jëf fay sono koura aas jërëjëf Moodu mu muy def ah organiser rek waaye ndax man xam naa xam xam naa sama bopp am na benn sëriñ mu ngi ci yoon bi di ñëw njëkk muy ñëw dañu ma nga ne léegi fexeel ba organiser ndax say say mbir yamul moo tax sa dara du yem te ñoom comme que ñu ngi ci yoon wi di ñëw moo tax ni Modou di organiser ànd nañu ci waaw macha allah bu amul woon des désordre dina am waaye ñii Modou xam na lañu ñu bokk ak ñoom ñoom xam nañu ndax ñoo bokk lépp yàlla na yàlla fay Modou am ñu topp xool ku ciy topp rek